salaamaaleykum papa na ngeen def mbaa yéen a ci jàmm jàmm rek salaamaaleykum bébé papa na ngeen def yéen a ngi jàmm papa Fall nuyu la mbaa yaa ngi am jàmm ba jàmm rek yaay papa papa Lamine moo nekkoon sa taaw jëkkër naa am doom ah. mu Mhm. tey ana ana ana ana soxnaam. soxnaam mu nga Kër Ndiaye ah, Lo. fa lañ dëkk. kon fa la fa la mhm. fii di dem xam naa bés bu metti la woon. kon dégg fii muy toog fii heure bu ma fii moroom mi toog fii la daan toog mhm. fii la daan toog ak guddi. guddi gu ne ma toogee fële la jëm si. ngeen nag moom. ñu yàlla ñëw ak mbiram yàlla ñëw ak comme ni mu ko waxee rek daanaka amoon lañ ci sax lu bëri lu leer a leer a ci yëf yi ni mu demee. Mhm. ñun daal kon ba tey jii euh, maanaam euh, amaatoo leen beneen dégg-dégg ne am na xale yu fi demaat wala. maa ngi dégg na ba tey xale yaa ngi dem. yaa ngi dem ah, kay moom biñ bàyyi dem. xale yi ngi dem ba tey. waaw. Ah. doy na waar doy na waar ko bàyyee xëy na dañ tëj ko. ñu mhm. xale yàlla suturaal ñu jàll. ñu yegg. yàlla moo gëm ko tamit dund ko ak euh, maanaam ngëm. ànd ceeg muñ salaamaaleykum na ngeen def dëgg la dëgg la xanaa euh, tey ji euh, bokk na ci li nga xam ne moo gën a changé seen dund ndax euh, nekkoon na soutien de famille nekkoon ko xam ne mi leen doon jàppale naam li mu daan am bëriwul mais lu mu amaat ñoo bokk koog yéen ñu ngi ko yàlla xaral àjjana. dëgg la. ñi nga xam ne seen koo ñëwul. bëri na. ah. ñu xam ne fii la newoon Maroc ñu jóge ñëw fii. ànd ak jabaram pour ñëw. ki jóge Maroc. ñu ngi tëbaski. Mhm. mu bokk ci. te mook soxnaam ñoo ànd si. noonu la ci desee moom it. kon kooku bokk na ci koo yi nga xam ne yegg si wuñu. benn koo mooy yegg si. Mhm. te kii dafa dee hôpital. Mhm. Ah, ci des dañoo tëmb. moytuñu moytuñu ah kon bañ koy yóbbu boobu fekk na deewagul. ci yàlla. waaw. ah. doomu mu ngi fi. moom bi ñëw na. moom moom deewul. ah moom ñibbisi na. ñibbisi na. ndeysaan ñi nga xam ne ñoom ñoo rëcc ñoo mucc ñu delloo si. mais ñeneen ñi ñëpp yéen maire yeeg yéen ñoo ñu hmm. hmm. sànni si ndox mi. egsi na waaye heureusement ngeen am jàppale am mairie bi taxaw euh, ñetti mairie yépp daal di leen taxaw ba ñu indi corps bi ba dencal leen ko fii nii seen mhm. loolu rek sant yàlla la am Mhm. rakkam sama rakkam ah sa rakk la moom mhm. ko Pape Sadio waaw mooy Sadio Dia mhm. maa ngi koy gërëm toog lépp lépp lépp moom ndeysaan moo oote Maroc ñu uyu ko mu joxe filiation yi nekk ban jour la teer wax ñu jour la mu teer waa ji wax ñu ñaata lam ak carte d'identité bi parce que carte d'identité bi des na des na ko foto waaw ñu ne leen am bi mën ko bu leen bëggee ñu di dajaloo. maire bu mag bi daal ko jël en charge. indi nañu ñëpp di ñu ki lañ njëkk a jàpp nañu si si morgue bi ñu jàpp si lañu bokk délégation si délai si ñu jub bari ñu trop ko amu ko te amu ko. Mhm, mhm. boo xoolee de nit ñi toll nañu fii ba sës fële. ah. رب نون بري أيوه tey jii soxnaam mi yi seen kër yow yaay def loo fagaatu yenn saay nga jox ko. Mhm. ñu métti na papa métti na sant yàlla bu baax euh, tey jii euh, ku mu noonu tamit si ñi ñuy seetaan jàpp ci njaboot gi euh, ñu daal di jël ndax nag ay xale lañu di jàng kenn lañ ci si mag six ans la six ans demaguñu mhm. keneen ki mooy ki juddu ci ginnaawam ah, keneen ki moom tam six keneen ki mooy ki mujjee judd ci ki judd ci ginnaawam mooy ki ñu ko tuddee. papa looy tàggoo. ah tàggoo sant yàlla rek. di gërëm waa seen TV. 7TV xam nga na dañuy def euh, mhm. Mhm. xam ne jàpp mhm. yàlla yàlla nii jafe na ñu fi fii taxawuñu. Mhm. desul ko. lu jafe la. Mhm. di saan yàlla ah ku si si nga def ko si. dëgg la yàlla dëgg la. yàlla na yàlla mhm. te li ngay def nii yàlla na si gën a amiin amiin amiin amiin comme ni ma ko waxee rek gis ngeen ñu ngi fii ci caw leen. daanaka ñoom ak euh, armel bi benn la. Euh, muy suñu papa naka Fall bi. Babacar Dieye Fall Babacar Dieye Fall euh, ñu koy wax Pape

salaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen bu baax a baax ginnaaw bu ñu amaatee mbégte rek dellu si waat jàkkaarloo waat ak yéen ñiy teewlu la 7TV la télé qui nous rassemble et nous rassemble ñu amaat présenté leen seen émission 7 voix du cœur kon nag euh, leen bu baax a baax foo leen mën ci nekk rek ñu ngi leen di bàyyi xel euh, di leen ziyaara bu wér a wér a wér euh, waaye nag di leen xamal ne jamono ji ñu ngi fii fi nga xam ne rek mooy Rufisque quartier bi ñu naan Thiawlène ñu ñëw seet si famille Lamine Fall ah euh, famille Lamine Fall Lamine Fall nag boo leen ko déggee bokk na ci xale yi nga xam ne ñoo mbëkkoon jamono jëlee euh, jëm fële ci fi nga xam ne rek euh, mooy Espagne te daal di teere woon fële ca la mu amoon lool ay moor yu bëri bëri bëri fii ci quartier yi ci Tëngéej ndax nag ñu ci ëpp ci ñoom fii la ñu dëkk ñu gisee nag boobaak léegi yëf yi euh, ba tey seddagul waaye nag euh, gis nañu ne parents yaa ngi dund lu metti di dund gisatoo sa doom bu metti lool lool euh, ndax nag yenn souvenir yi day daal di ancré wu daal di nekk am ñoo xam ne tey jii dañoo dem bàyyi njaboot am ñoo xam ne ba ñuy dem seen soxna dañoo won noonu lool ku ci mel ni tey jii Lamine Fall mi nga xam ne moom la ñu seet si fameem Euh, yaayam la ñuy fas yéene waxtaanal tey ak euh, famem euh, ñu dalal yaayam yaay booy nuyu la bu baax a baax. maa ngi lay fay soxna Guèye. noo soxna Guèye. soxna Guèye. soxna Guèye yaay booy yow yaay yaayu Lamine Fall. ma bàyyi la rek nga àdduñu ci yëf yi naka la demee woon sa doom Lamine Fall bi muy dem mi ngi bàyyi soxna. bàyyi woon ñaari bant ak ki nga xam ne rek mooy soxna soo xam ne dafa tolloon diggante Euh, daanaka sax euh, kooku mucc na yàggul dara euh, ba ñu duppee ko ko mu doom bu góor ma bàyyi la rek nga àddu ci yëf yi naka la demee ak naka nga koy jóge xanaa mu mitti torop mu mitti torop si man ndax manqué na ma torop torop torop ndax doom jama ja baaxoon la jama déggal ja xam ne ji daal kii na ma daal feeñ na daal si nga xam ne ki du siggi sax wax wax wax ni daa yaru daal du siggi sax xool nit te manqué na ma torop torop torop te mooy woon sama wéttal di sama sama wéeruwaay mhm. mooy sama wéttal di sama wéeruwaay manqué na ma torop torop torop euh, yaay booy euh, boole woon na ñaar di dugg ci géej gi euh, maanaam napp bi doonoon mool boole ko tailleur lépp ngir teral yaay teral baay naka la doon la demee woon naka la demee woon liggéey danaa def téyeer ak def mool téyeer ak mool moom la doon def. naka naka la bu xëyaan day dem. ba fekkee géej gi géej gi amul yi jën mu dem sa téyeer ga ba téyeer gi doxulee mu dem sa géej ga noonu la ko doon jàppee. noonu waaw. Euh, lan nga ñu mën a fàttali ci ba mu nekkee xale xale la xale ba am jom la woon xale ba am jom bëgg ay waajuram am jom daal. Mhm. am jom torop bëgg a waa waajuram mm-hmm. euh, tey jii euh, dëddu na euh, laata loolu ñuy ñëw ci ñi nga xam ne rek ñëpp wax nañ ci naka nga yéegee génn àdduna man daal dama jékki rek ñene ma Lamine gaañu na ma ne gaañu ñene waaw baa gisee mu mitti ma torop nekk fii si sama xol bi may waaj a waaj a kii mhm. ma sonn naa na ba bëgg a dee mu mhm. mitti ma torop manqué ma torop mhm. ndax moo la sama wéer waay ba muy dem yëgoon ko woon ndax soxnaam yëgoon na ko soxnaam tamit yëgu ko yëgu ko moom naka la demee kan ngeen gëj a gisee kenn gisu ko ñu jékki ne gaañu na ñu ne Lamine gaañu na loolu daal la foog ngeen ñaata ñoom nag dañu yàggoon nag si si géej gi ah, dañu yàggoon si géej gi uh-huh. dañu ñaw lekk moo jee amatu ña lañu ña loof mm. moom mii daal loof loof moo tax mu dee ñaw lekk moo jee amatu ña lañu ña loof mm. moo tax Lamine mii dee si te am na ñeneen ña si réew sax mm-hmm. ñu dëkk sii seen googu lañu dëkk ñaari nit ah digga tamit mm-hmm. digga tamit ñetta ñooñu ñëpp daña loof mm-hmm. ndax ñaw lekk moo dem ba jee amatu ña lañu lekk moo tax moo tax loolu li si am ne am si. moo tax dañoo yàgg si géej waaw. dañoo yàgg ci géej gi. waaw euh, ñu xam géej lañ wala. ñoom xamoon nañu géej de xamoon nañu géej xamoon nañu géej xam naa saytaane rek moo si dugg. Mhm. saytaane rek moo si dugg waaye xamoon nañu ñi si dugg ñëpp ña xam géej lañu. Mhm. a fekk na saytaane rek moo si dugg. Mhm. waaw ndax de eb ñaa xam nañu waruñu ñaa eb ña eb ña si. ñaa xam nañu setuña ña dem eb ña si. Mm-hmm. loolu la moo indi lii lépp. moo indi loolu. ba pare ah, lekk yi doyul tamit. Mm-hmm. lekk yi doyul. Mm-hmm. moo indi lii lépp yaay booy dañuy dem xooli euh, wayjuram bu góor euh, yëf euh, naka la demee ñu dem seetaani papam ci waxtaan ba ak yow. waaw ah, wax si affaire bi ni mu demee mooy ñoom xam nga xale rek du ñu tàggoo dañ jékki-jékki départ dem ñu toog ay jour gisuñu ko si la ñu xam ne dem na si mbëkk mi. après si la ndogal boobu ñëwee bon gisuñu leen déggu leen xam naa ne ñu réer si géej gi ba le treize si lañ dégg ne tey nañ dax la ah li ma si mën a wax mooy premièrement manqué nañu lool lool lool wallaahi xam naa ne da uti nag pour teral ay waajuram pour teral ay mbokkam xale bu noppi la woon te da doon liggéey ak def mool moom amul woon xaar ma yàlla benn nit si bii li muy doon doon mag su ma masee gis mën a tël rek comme bi xale yi def pap tam papa ñëw na sam papa ñëw su ba guddee su may jaar tuuti naa dem ñaanal ko bu ngoon guddee naa ko ñaanal. jërëjëf kon nag gis ngeen kooku wéy juróom bu góor la muy Lamine Fall euh, mu doon koo xam ne tamit am lool ko nag ndax nag doomam euh, bokk ci li nga xam ne rek mooy gaal googu demoon teeru sax la ñu bëri woon lool lool lool ay moor ndax gis nañu yëf yi ni mu demee. dem nañu ay fan kenn gisu ba ñuy dem euh, kenn tàggoowul euh, daanaka tey ji buñ jàppee ci li nga xam ne rek moom la euh, yaayu Lamine Fall wax ndax xale yi des fois la ñuy def doo koy xam ah. ndax nag géej ak danger danger bi ci nekk yëpp ku yëg sa doom xam naa doo ko bàyyi mu yëg ah. yaay booy ma bàyyi la rek nga àddu ci ni nga xam ne rek noonu la affaire yi demee ak soxnaam bi ngeen toogee gisoo leen ko naka ngeen bi ngeen toogee ay fan gisoo leen xanaa ñene ñene ñoom de mbëkki na yi dañu ne ñoo fii ne ñooñu mbëkki na ab xaritam la sax xarit bi moo ne mbëkki na moo ne Lamine de dem naña tale nga nga waxal ma ko papaam ne ko Lamine dem na loolu de lan si am xanaa mu mitti ma torop ndax moom tàggoo tàggoo tàggoo kenn mu mitti ma torop torop torop moo tax bi ñu la ma daa gaañu noonu la ma mittee dama mitti ba léegi sax dama mitti damay jékki sax di jooy te du ma xam la maa jooyloo nekk li ma mitti. ñu waaw waaw naa ay fan fan waaw. ñene ñe ñe ñëw ne Lamine da daa gaañu et eh, mo papaam sax mu nga dem liggéey ji. ñeneen na papa ña oo papa mu ne ñu ñëw léegi man tamit ma naa waa lan la ñoom tamit nanguwuñu maa wax li mu doon. ba bi papaam ñëwee la la ma Lamine moo gaañu la papaam moo ma ko wax. dama mm-hmm. papaam de moo gaañu ma jooyee jooy ba sonn. Mm-hmm. ba léegi dama kaa jooy. Mm-hmm. Euh, ndax daan na déedéet daaw ko waxtaan. déedéet mosu na yéeg ko wax de. daaw ko juume sax. ay moromam rek xam naa ñoo ko si dugal rek. kon daal yow bi loolu amee ba naa mbétteel sax ndax mosuma wax la si mel. Mhm. Euh, soxnaam naka la ko mu du dund ko rek la mitti ndax moom nee na kenn waxu ko ko nee na Lamine tàggu ko. Mhm. bi moo dem tàggu ko mu dund ko la mitti rek. dund ko la mitti ba ni mu amee doom noonu. Mhm. ba ni mu amee doom. waaw ñëkkal sax amee doom. Euh, léegi wax nañ leen ko wax leen euh, ci gaal gi la bokk. boobu gisagoo ko. Euh, yi nu mu demee naka la demee période boobu ndax gëmoon nga ne moom la sa doom la. man gëw ko woon sax papaal na ma yow nga ne gëmoo ko man mii dajji kees gi xam na ma ne Lamine dee na. Mm-hmm. mu ne moom mii dajji kees gi xam na ne Lamine dee na ma ne ko man gëw ma ko ba tey. dee mm-hmm. gi ko ba tey. Mm-hmm. gëw ko. ndax biñ ko indee gis nga ko. déedéet gisuma ko de. gisuma ko. ma ne ko mu ko ma man mii daa ji gi de xam na ma ne na mm-hmm. mu wax ma loolu papaam na ma man mii daa ji gi xam na ma ne Lamine dee na mm-hmm. kon yaa ko gëmul waaye man gëm naa ko na maa daa ji gi te xam na ma ne dee na mm-hmm. euh, tey maamam naka la mu dunde ka la mittee mitti maamam mu dunde ka la mitti ba maamam jógóor sax mu yëgee na daa dee bi mu yëgee na daa gaañu si la feebare maamam bu góor waaw laataa ñuy wax ci maamam bu góor boobu naka bu jigéen nga xam ne moom it euh, maanaam yëf yi affecté na ko lool lool lool ndax nag euh, yëf yi ba mu amee bi ko paa bi yëgee daanaka ay fan rek la ci waaw teg ci moom it ba tax na moom lañ ko uufal fii ci fi nga xam ne rek mooy euh, armée la yi ñu dem seetaani témoignage boobu daal di soirée waxtaan ci la 7TV seen émission 7 voix xale bu baax la xale bu yaru la kenn mosu kaa dégg ak kenn bu lay nuyu sa doo ko dégg dafa teel da baax waaw mu ngi daani doolem rek mu nga sa tailleur ba mu nga sa lii ba géej gi neexee mu ngi si géej gi moom daa am na diine tamit dëgg yàlla bët boobu muy demee bët boobu noo bokkaañ waaye xamuñu woon ne day dem diine am jaar sa sa ginnaaw la si laa dégg doom ju ndaw ji doomam ji dëgër mu mu koy wax waaye man bu muy dem yëpp mu métti ma loolu ñoom paa yi ñëwoon ñii ña waa commission bi ñoo ñëw wax ko si kër waaye bi ñu ko waxee sama borom kër ñetti fan la rawanteeg moom muy maama waaw bi maa sañ a ko denca moom mu gaañu àll mooy maama mu nekk lu métti na xaar ba léegi bi mu koy yëgee magam bi ci kër gi daanaka yow say juróom-ñaari doom a nga fa benn rek moo wàññeeku xam nga ci kër loolu la ko wax daanaka santali yàlla rek mu ne ko juróom-ñaari banta moom leen si gaal bi ak ñani léegi kenn rek moo si wàññeeku waaye daal si la si la kii daal la commencé ñaari fan ñetti fan waa ba pare te doomam si la bokk si gaal bi sama doom man waa juróom-ñaar la woon si waa kër gi waaw waaw waaw sept personnes ñoo si dem waaw hmm? bi ñaari ka eeg ci wax mais comme doomu si si leen xam ne juróom-ñaar la si xale yi waaye xam nga nombat lay doon yaayam xanaa mu jàpp ci yàlla rek mu ñu rek waaw métti na ñun ñëpp la métti xam ne yàllaa ko tuddoon ndax da doon daani dooleem rek kon ñoo ko gisandoo gis ngeen maamam bu jigéen boobu na mu ko waxee maamam bu góor yëf yi affecté na ko supporté ko ba daanaka ñoom ñaar eh, ñett ñeenti fan la ñu rawante ñu uufal ko ko fii ci armelu Thiawlène yi lii rek di firnde ne xale yi war nañoo moytu euh, ut sa avenir euh, baax na waaye nag euh, ci yenn risques yi jaru ko ndax nag yaa ngi bàyyi soxna bàyyi ñaari doom euh, bàyyi tamit euh, kenn koo xam ne rek mu ngi ci yoon euh, sa jabar sonn nekk ci diggante lépp daal yaakaar dem tekki dem teral yaay teral baay waaye nag dina toll foo xam ne yaay booy yaakaar naa dootu ko jar ndax tamit tayle sa bakkan ngir teral yaay teral baay ah, wéetaange mën na fi mujjee am mm. muy li nga xam ne tey jii moom moo la dal Euh, bi bi loolu amee ba ñu indi ko euh, ba denc ma bàyyi la rek nga expliquer ñu ci maamam jooju nga xam ne moom nga doon wax. maamam bu ko dégg rek daa dee feebar feebar rek feebar rek bi ñu suulee Lamine ba pare rek mu daa dee ña teg si ñetti fan rek mu gaañu. Mm-hmm. ñetti fan rek lee si teg mu gaañu. Euh, ngeen ñëwaat amaat beneen naqar. waaw am naqar. am na tamit beneen euh, yeneen mbokkam yoo xam ne ci la ñu bokk muy sept personnes ci seen famille waaw mhm. juróom ñaari nag ci seen famille ñu ah, dara jotuñu moom juróom ñaari nit si mhm. gaal gi la bokkoon waaye dara jotuñu. Mhm. ñoom moom mu mais ci génn am na am na ci ñoo xam ne waaw waaw ñi dëkk sii seen. mooy kii Tafa Tafa ak rakka ji. man rakka ji dama ko fàtte Tafa mm. ak ah, rakkaam ñooñu moom suñuy mbokk lañu waaw <laughs> yéen ñi nga xam ne ñoom ñoo maanaam ñi jot mucc ñoom lan lañ leen expliqué que moo xew ñoom de waxuñu dara ba tey waxuñu dara ba tey mm. waxuñu dara kon naka ngeen xam ne seen lekk moo jeexoon ñoom ñoo ñi ñoo ko wax mm. nit ñi ñoo ne ñii ñëw lekk daa ji ñëw lekk moo ji ndax la lañu teer ñaw ñëw lekk ñëw lekk moo ji loolu moo mm-hmm. moo tax ña loof nii. moo ña loofal bañ moo tax ña dee nii. Mm-hmm. nit ñi ñoo leen wax loolu. waaw. ñoo ko nit ñee ko wax waaw. Euh, après bi loolu amee euh, soxnaam toog na fi ay fan. Euh, fan yooyu yaay booy naka nga ko doon dundee ak moom. dund ba métti rek mu ëmb ba diis ko. ndax nag euh, yëf yi euh, ah, dunda ba metti rek. dunda ba métti rek manuma kaa xool sax nekkee dunda ba métti rek. Mm-hmm. manuma kaa xool sax ni mu mel. daaw ma xool sax nekkee ni mu mel mooy yërëm ko be ni mu mel. waaw nga waajal ko mu dem ci naka la ko doom waaw fa mu amee doom euh, naka ah, la ko yëgee léegi ñene moom lee duppe ngénte ne ko moom ñene moom lay ko duppee ñu duppee ko waaw euh, tey mu mitti ma torop mu mitti ma torop ba ma gisee njabootam damay mitti mitti ma torop ma xam ne rek demoon teral yaayam ak baayam rek moo taxoon mu dem far yàlla kiiw ko suktalu ko daal ma ne ko far yàlla suktalu ko loolu la kay. Euh, tey jii euh, bokk na ci ñoom la daan defal ñu bëri ñoo xam ne moom moo la ko yor. waaw ah, waaw moo ma ko yoraloon loolu moo ma yoraloon dama daa jox de ba liggéey jee ba ñëw na ma yaay am ba gëti jee ba ñëw tamit na ma yaay am baaxoon na si man torop torop hmm. torop. Hmm. baaxoon na si man torop moo la woon sama sama ndimbalal àddina ak. Hmm. kon fi mu ne daal manqué na la bu baax a baax. waaw manqué na la bu baax dem seetaan yi euh, yeneen témoignage euh, daal dellu soir. ma ne ko moo la ko moo tax manqué na ma bu baax. manqué na ko bu baax moo doonoon dimbalam daan na dem ñawi ñoo indi. daan na dem ba ci géej gi ñoo indi. waaw nag bu ñu fàtte ne mool la woon. te tamit nag bëri na ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo demoon ñu ci bëri xam nañu géej. mais comme ni mu ko waxee dem nañu ba seen lekk jeex sonn nañu euh, am nañu ay jafe-jafe ak yeneen ak yeneen ak ah, yeneen ñu ci biir ndox yoo xam ne kenn na waar loolu lépp jàpp leen ba tey ji euh, tax nag ñu ci bëri ñàkk doon loo xam ne euh, waa Tëngéej dootuñu ko fàtte ndax nag ñi ci ñàkk seen bakkan yéen am seen famille ci juróom ah. yeneen famille yeneen famille am nañ ci ndax loolu bi mu paasee yaay booy jéem ngeen a ñaaxal xale yi laataa ñuy dem ci témoin. ña dem ba tey xale yi ña tey dem ba tey. dem ba tey. dem ba tey dem ba tey. ba tey faalewuñu loolu ña ngee mbukki ba ñu koy firndeel nañ dem seetaani ay témoignages ñu ngi mbukki ba tey Euh, boo xam ne moom it euh, dem na juróomi yoon ne yëf yi ànkawul di wone rek ne euh, yëf yi daa mel ni sensibilisation bi war des na ba tey ci gone yi li tax ñuy mbëkk di dem ba tey te xam ne seen bakkan xaj na ci ndax nag loo xam ne tey jii da ngay dem teral yaay teral baay faf yem fa yaakaar naa da ngay indilaat yaay ak baay beneen coono ak beneen xalaatu ak yoo xam ne yaakaar naa mooy gën a ci ñu dem xool li témoignage daal soit ñun dem doon ko ku wax information bi affaire bi amee bi affaire bi amee day mo day nu oo jox nu information na xale yi day teer Maroc quoi ñu teeree Maroc am suñu benn jarbaat bi su wàññeek man man moom damay dem géej quoi fépp man ci kër gi laa dëkkoon waaye dama taxaw sama jarbaat la ñu ñëpp ay famille la waaw man bi ma demee ci ci laa ko yëg après bi ma teeree si laa oote neem loog moo am parce que bett lii metti na ma trop parce que man daan naa ànd moom ji tax mu nekk xale bu jàmbaar ku bëgg dimbali ay waajuram avant muy dem géej da daan téyër la day boole di dem géej bu gisee beneen liggéey boo boole kaax moom xale bu am yërmande woon si si ay waajuram ba pese lislaame du si gis ak kuli nit man damay jàpp fi mu doon dem pour dimbali ay waajuram moo ko ekkati woon waaw parce que da doon dimbali ay waajuram si liggéey bi mu daan def. non man bette bette laa si amoon parce que information bi mu ñëwee information daal laa ko yëgee même fam même famille bi même famille ñi si nekkoon yëpp. benn kër gi day dëkkul waaye ñu bëri day taxu day taxu quoi ku nekk sa kër waaw waaye benn famille waaye ab lii lañ ko yëg quoi bi soog bi amee suñu yëg ne ñoo ñëpp demoon ne waaw ku nekk lu am yàlla la ah lu am yàlla la te ku jox pour dem pour tere say waajur a sa bopp moo tax ngay dem waaw damay ñaax nit ñi ah damay damay ñaax bu baax ñoo xam ne ah yàlla mu ngi waaw yàlla mu ngi waaw même boo amul yoon bu légal bi sax man man man sama boppam it tànte naa juróomi yoon man manuma def daw ma waaw dund naa ko juróomi yoon manuma def ah man em naa fii dañu am ay paan oo ñeekuwaat waaw ah yo yoon sans dépend neex na metti na waaw su ko xam yow yow mii di mool boo xamee neex na metti na waaye yàlla moo si def sutura li li mu jik mool mi ak li mu si jik ñaneen ni du benn parce que boo xamee géej dëkk si géej di si finaan ah di nga xam lu bëri waaw te ba léegi ba ma gisoon gaal nii dama siy dugg parce que dëkk bi metti na dëkk bi metti na trop man bu ma gisoon gaal nii léegi léegi nii dama siy dugg a dem ah lépp yàlla la rek lépp yàlla la lu am yàlla la nun dañu dañu ah di liggéey di tara suñuy waajur suñuy waajur bu léegi man am dara man nu am dara man nu réagir dara loo moo tax mbir mi géej gi dara amatu si géej gi lañu yaakaar dara amatu si dara dara amatu si saxaar mbaali da ngay dem ñu yàqal la du mujj fenn da ngay dem teeral doo jàppal dara gaal ak gaal kasa ngay teeral waaw moo yokka dafa metti torop torop waaw dafa metti ne jàppale jeunesse bi dëkk bi ñu am lu ñu jàpp ñu liggéey ñu ñu mën tarañ tarañe boppa tarañe waajur jërëjëf euh, kon nag euh, ñoo ko déggandoo tey bi euh, am na ci ñoo xam ne loolu découragé wu leen maanaam gis ku ci faatu gis koo xam ne tey jii am na ci ay gàllankoor waaye nag euh, yaakaar naa jaay sa bakkan dara yëpp neex na mais nag jaay jaw ndax nag am na ci leen loo xam ne tey jii euh, boo ko defee amaana yow di nga sax nekk ci jàmm mais ña nga bàyyi mm. dañuy sonn xalaat bi ay waajur day bëri euh, yaay ma bàyyi la rek nga àddu ci xale yi tey ji ndax nag am na fu la féete woon mu la doon defaral xale yi tey kan moo leen yor. xanaa ne maam Dia mhm. mooy jékki rek yónnee yaayam dara. Mhm. Mhm. yónnee yaayam dara. mooy jékki-jékki yónnee ko dara. waaw. dooleem demeewul xale yi ñu a jàng. waaw. ñu ngi war a jàng waaw ñu jàngi te te amuñu moyen. jàngi te amuñu moyen. te mm-hmm. Pape ab liggéeyam demewul noonu. tey mu am bu suwaaru am. Mm-hmm. ci loo ci diggante xanaa di waxtaan ak man rek di waxtaan man ba amee ñëw jox ma. Mm-hmm. loolu rek di waxtaan ak man moom. ma ne di waxtaan man ba amee ñëw jox ma. jox jabaram jox yaa waaw waaw. waaw waaw dëgg li nga wax yëpp dëgg la kay. parce que la woon moom. Mm-hmm. te jàmbaar la woon. Mm-hmm. xam naa yàlla dogal lii rek. Mm-hmm. waaye jàmbaar la woon. yàlla ma ba baax métti ma ba baax. xanaa métti ma rek. xëy rek ñu ma sa doom dee na loolu loolu métti na ma torop dama métti ba tey damay jékki saa di jooy te xam ma la maa jooy loo ndeke loolu ndeke ni ma métti Euh, dañuy dem seetaan yi li des ci témoignage yi laata ñuy tàggatoo ak euh, suñu yaay ndax xol bi neexul. Ah. Euh, dañuy wax ak li ci xol bi yëpp mënul jóg. ndax nag situation dina la fekk fa nga xam ne sa doom boo xam ne amaana jege woon na la toog nekk sa xarit nekk sa wéetal mais tamit nekk sa ndimbal daal di dem du yomb ko nga wax ci moom ba tax na dañuy dem seetaan yi témoignage bi def muy seen tante ñu daal di dellusiwaat léegi ci waxtaan bi daal di tàggatoo suñu waaw Lamine Fall sama doom la ndax sama doomi mag la mais xale bu amoon yar ku amoon yar amul benn problème yërëm ay waajuram bu la rombee nuyu la balaa nga koy fay dem na ndax dafa amoon kersa du siggi nii sax taxaw xool la man bi ma koy mujjee gis avant muy dem doomam perantal bi ki doon naam mooy jooy jooy yu metti yu mettee metti ma toog nii si buntu kër bi mu romb ma gàddu ko dem ak moom barrage bi toog ak moom nale nax nax ba sonn si guddi xale bi bañ ne du noppi ma yaayam a ngi taxaw sama wet ma ne kii lu muy jooy mu ne ma kii day awa seex day jooy rek xaw ma lan lay jooy ma tàllal papaam loxo ne mu ñëw ma ne ko parental buy jooy baaxul mu ngi toog yaayam a jabar jaa ngi taxaw ak moom ma ne ko Lamine mu ne ma ma ne ko parental buy jooy rek baaxul léegi xam nga nooy def mu ne ma ma ne ko dangay yaayam bu subaana boyal taal ba mu yànj mu tubb loxo yow papaam nga tubb loxo xorom sotti si taal bi bàyyi mu tëf tëfi noonu ba jeex ngeen tojal ko ndax parental buy jooy baaxul ak fi yaayam tollu nii mu ne ma bu sooba yàlla dinañ ko def man kii dama nax ba sonn noppiwul yaay si la ko jël ñoom ñaan ñu ànd a dem defe naa loolu si ëllëg sa la gaal gi dem man gaal gi départ na ba mu am ñaari fan ñu toog nii ma gis jabar ji ni mu toogee sëngeem ma ne waa ma am ku ma toogal ma ne ko waa yow Khady Gueye mii de dafa mel ni ku am problème lan la mi ngi sëgga rek mu ne ma jëkkëram dafa dem si gaal gi mu ne yow bul waxati li mu ne ma dem na ndekete booba mëntam tam samay rak ñu ngi ci gaal ga waaw kër gi sept personnes ñu ngi ci gaal ga xale yi waaw ñoom ñëpp ñu ngi si gaal gi mais dëkkuñu fi nag dañu ngi dañoo taxu ci kaw mais ñoom ñëpp fii lañ dëkk même famille sept personnes ñu ngi woon ci gaal gi waaw noonu laa ko yëgee metti torop metti torop ndax man dama tëdd ba xaaja guddi ma gént ma gént taxaw tiim ay armeel bu ma taxawee si tiim armeel yi ma ne si gént gi ma am ko taxaw sama wet mu ne ko waa man armeel yi ma taxaw nii pour lan la mu ne ma tëbal boo tëbul cëppeelu armeel yi boo si tëbee dina gën a metti si sa famille ndax sa famille ñi ngi si tolof tolof boo tëbee si armeel yi day gën a metti cëppeelul nga wàcc bañ a dugg si armeel yi si biir gént bi ni may cëppeeloo tëb ma teg sama loxo ci keesu nii si gént gi mu niin mbatt ma ne waa lii lan la ni mu ne ma ah sa famille ngi si tolof tolof de ma ne ko luy lii mu ne ma kon saraxalee ndox ndox bu sedd si laa tëbe si fajar gi si ay nelaw daw jubali sama néegu tànt bi xam nga doomam da si dem si laa daw jubal si néegam fëgg ka suba teel mu ubbi ma ne ko tànta boobu sama yaram bi mi ngi lox tànta mu ne ma ma ne ko xale yaa ngi si problème de tànta saraxal ndox ndox bu sedd muy bésu àjjuma jour boobu balaa ñuy julli àjjuma préparé na moom mii ba saraxe ndox nekkata boobu gaa yaa ngi ci problème ci guddi gi nag laa ci gën a am lu ma leer ndax nit ñi dañuy bagante di dem di ñëw nax dëkk bi yëpp seen ak njaboot a ci nekk ku nekk di jooy sama njaboota ngi ci gaal gi sama njaboot lii mais nangu ñoo wax daal réellement li am mais ñu ngi nëbbatu di wax ci suuf affaire bi nag choqué ma metti lu metti daal lu metti doo nelaw fii koo xool rek koo xool si dëkk bi rek dangay xam ne kii am na lu mu yëg si yaramam mais mu mënuñoo wax réellement lii la ñu expliqué daal ni mu demee xamal nañu ne gaal gi dafa am problème si géej dafa am lu leen doon sonal si biir géej di wax ñoom di def li muy def sonal leen daal di xeex ak ñoom si biir gaal gi waaw loolu moo leen perturbé mais fii ñoom ñëpp ay navigateur lañ ñoom ñëpp ay mool lañ ay jàmbaar lañ yërëm nañ seen waajur yi ay liggéeykat lañ si géej gi lañu juddoo fi lañu yaroo fi lañu màggee ñëpp mën nañ ndox buñ mënul woon ndox gaal bi kenn du teer buñ mënul woon ndox kenn du teer mais dañoo mën ndox moo tax ñi si des teer mais nag saa mag doo ko weesu xëj na ñooñu ñoo si waroon a dem moo tax seen bekken yem foofu mais nag ñi si des ay jàmbaar lañ ndax fexe nañ ba teeral gaal gi macha allah. si sept personnes yi ah ñëpp rek ñoom ñëpp ndax ñoom ñëpp samay rakk lañ ñu baax lañ macha allah ñu baax ñu am yar ñu fonk seeni wéyjur ñu fonk seeni jigéen ñu bëgg seen famille ndax famille rek moo leen tax a jóg te lu ñu am dañ koy bokk ak ñoom mu néew mu bëri. dañ koy bokk ak ñun barke Sëriñ Babacar si kenn lekku si dara bàyyi sa yaay wala sa mag wala sa rak wala sa jigéen ndax moom ku nekk woon sa doom ji doo ko tëg bët du ko gëm jabaram tamit nekkoon ku baax sëykat macha allah jàmbaar man mi maa gën a tuuti si ay gorom mais dama ko doon fekk muy taal añ ma ndékki ba suur dajale sama bagage yëpp ñëw tegal ka neka xadigay raxasal ma teg ko fa dem mu raxas si yëpp indil ma ko am jàmm fonk ay goroom fonk ay njëkkeem demul fenn bëriwul wax duggul ci kenn mu ngi yem ci kër gi toog fi mu war a toog keroog ba muy génn kër gi di dem seen kër keroog suñu xol yi tooy na torop macha allah keroog jooy naa bu baax a baax keroog yëg naa ko yëg naa ko bu baax boobu amagul doom yëg naa ko bu baax man personnel man moom personnel dama ko yëg ndax bu ma sañoon tey sama jabaru càmmañ day toog si kër gi ba màgget ba waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. jërëjëf kon nag euh, gis ngeen euh, kooku seen euh, tante la muy koo xam ne moom it amoon relation boo xam ne bu particulier la ak ñoom. Euh, ñi nga xam ne rek ñoo dëgg set ci famille bi euh, yaay booy euh, amaana tey bi am na loo ñuy wax ci li nga xam ne rek noonu la expliqué ne noonu la ko géntee ndax amoo benn sensation en tant que yaay wala lenn loo xam ne rek maanaam génd na la ci li nga xam ne rek mooy dama mitti torop na ma torop mitti mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. na ma torop fa mitti en mitti na ma torop fa mitti en mais avant moo xew amoo waaw bii loolu laa xew tëdd ma moom tëdd ma nii ma tëdd rek fi ma tëddee rek ma jékki rek tàpp moof dënn ma jékki rek na nii dóor moof dënn léegi sa ëllëg sa lañu na ma Lamine gaañu moom waaw ma jékki rek dóor moof na nii dóor moof bi ma ko dóoree sa ëllëg sa lañu xam naa de dégg rek xam naa moom laa sentir moo tax ma doon dóor ma dënd noonu soo yog sa lay na ma Lamine dee na ma ne kon kon lii laa yëgoon bala dóor ma dënd na ma kon moom la loolu daal laa si euh, sentir bu nga euh, loo ñuy fàttali ci jàpp ci sa bopp la loo xam ne doo ko fàttali baax gi mu baaxoon si man ba pare du xulli nit du dox ba xulli nit baax a baax a baax ba bëgg dee mel ni wàlluwu baax bu bëgg dee baax a seet la danga naa wàlliwu la ndax moom du wax mm-hmm. du wax du saxat du xulli sax nit loolu moo ma manqué su ma wax waxtaan gi moo sama te su néeg rek lay toog moom mm-hmm. néeg rek waaw waaw moom néeg rek lay toog maanaam yaay la woon waaw kay moom néeg rek lay toog di seetaan télé ba ma la kaa yaa bëgg télé mm-hmm. xam naa di war ngaa jënd ab télé yooyu yëpp dama ko kadaawa moo tax dama manqué su nekk manqué na ma ba baax dama wéet torop torop ndax moom moo ma daa wéttali moo ma daa wéttali la eewu rek moom néeg la jëm bañ na ko ba falaa ndékkee mm-hmm. ab añ falee kaa oowe moom néeg da ko bëggoon torop nday sax damay manqué ba su ma xel demee rek may rongañ danaan bas Mm-hmm. comme ni mu daa toogee nii di waxtaan ak man mm-hmm. ba sama xel demee rek damay jooy te du ma xam la maa jooy loo mm-hmm. nekkee ni mu ma manqué nii mais fi ñu ko ma dem siyaari ci na armeer yaa ngi nii sori wu moom ak maamam ma dem siyaari moo sori wu maa ngi leen di jërëñ jëf yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay seen ab xol feen jublu yal na fa yiiru yàlla jublu waaw loolu rek laa leen di lan ngay wax ak papam nan naka nga ko dundee ak papam dunda ba metti rek dunda ba metti rek ma papa mm-hmm. papa moom it naka la ko dundee dunda ba metti rek la ko dundee dunda ba metti rek dunda ba metti ndax nu wéttal la woon wéttal la woon waaw si noonu rek la daa toog kon fi mu ne nii yaa ngi gis xale yi waaw dañaa jekki ñu ñëw fi waaw mm. dañaa jekki ñu ñëw fi mm-hmm. xam naa buñ fi ñëwee du neex ci xol waaw du neex ci xol mm-hmm. dañaa jekki rek ñëw toog fi ay fan dem ñibbi waat mm-hmm. waaw euh, kon nag euh, gis nga euh, ni mu ko waxee rek mu ngi bàyyi ñetti bant te ku leen jàppale ñu jël ñu nekk ci caw leen. dend ak cimetière caw leen yi di wax ne rek euh, ki ci génn àdduna di doomam di Lamine Fall ak ñi ci génn àdduna yëpp ñu ngi leen di ñaanal euh, suuf oyof seen kaw ndax ay doomu tëngëj lañu muy euh, gaal bi nga xam ne rek moom mokkoon jamono jële daal di teere jee fële ca dax la te mu bëri woon lool lool lool ay moor ñu indi loon leen ci ay yu am solo Euh, ci li nga xam ne rek euh, mooy maanaam euh, li ci xew yëpp waaye nag tey ñu dellu si waat waxtaan ci famille bi nga xam ne rek mooy famille Lamine Fall nga xam ne daanaka bu yëf yi di ñëw sax bi am sax fekkul kooram moom mu yegg fekkul woon mu yegg si ba tax na nag ñu jaajëfal bu baax a baax way juróom ci dalal bi ci yaatal bi waaye ci waxtaan bi naam du yomb wax ci sa doom bu dëddu waaye nag euh, jéem nañu te nag euh, nag sensibiliser waale xale yi ci li nga xam ne rek mooy géej bi du solution bu mujj ndax nag euh, daanaka tey jii dangay bàyyi say wayjur dugg ci géej gi xamoo looy fekki xamoo di yegg xamoo doo yegg yenn saa yi nga bàyyi njaboot mu doon loo xam ne day gën a métti day gën a métti naam teral yaay teral bàyyi neex na waaye nag day am leen loo xam ne tey jii du ko ja ba tax na ñi ci dëddu yëpp amaana tey seeni wayjur moo taxoon ñu dëddu Euh, moo taxoon ñu dem dugg ci géej gi ndax géej boo xoolee amoo fenn foo jàppandu nga daal di sacrifié wu dem way jur dong la mun a def loolu ak dimbali sa njaboot. kon nag euh, ñu leen di saw bu baax a baax yal na leen suñu borom euh, oyofal suuf seen kaw waaye nag di sensibiliser ndaw bi nañ jéem a yi ci voie légale yi daal di mën a dem ci tukki boo xam ne tukki bu leer lay doon te bàyyi mbëkk mi te xam ne amul mucc amul benn sécurité kon nag ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di wax ne nag euh, tey jii Lamine Fall mi ku dimbali ay doomam mu daal di jël ndax am na ñetti bant yoo xam ne seen ay xale bu ndaw la euh, tey ji amuñu fenn fu ñu wéeru gis ngeen seen maam mooy yëkkati jékki-jékki jox leen te nag demee demeetul noonu dem na ba nekk mag kon nag ku leen jàppale ñu jël euh, di wax ne nag euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi ah di jaajëfal bu baax cadre yi ku ci mel ni Souleymane Sy euh, Papa Diop di jaajëfal waa montage Lamine Mbengue ak ñi ci ginnaawam yëpp production fàttewuñu kenn ku mes mbay ak ñi ci ginnaawam yëpp ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal bu baax suñu yaay jo yaay bi ñu dalaloon yaay boobu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal xolu muñ di ñaan yal na suñu borom teg loxo ci njaboot bi di leen wax fi amaanu laa jàngeen jëf ba beneen yoon incha allah ñu ànd ak keneen ci li ci xolam. amiin merci beaucoup.